moo tax barki démb dégg naa ñu naan woy Pape Malick dafa daw. <laughs> waaw ñu ne da daw. fan laa daw foo dawoon. fan laa daw xanaa fii laa daw mais mu ne dama lay dama defal benn benn révélation bu <laughs> daw. <laughs> xam nga euh, man Pape Malick depuis 2019 je suis titulaire de passeport diplomatique. 2019 ba tey parce que on parle de voyage on parle de l'extérieur parce que jàpp nañ ne ku war a daw extérieur kay daw 2019 ba tey. cinq voyages laa am je parle sous le contrôle de l' boo xam ne police mun nañu vérifier li may wax aéroport ak yëpp cinq yoon laa voyage entre 2019 ak tey cinq yoon alors que le voyage Sénégal dañ ko jàppee benn symbole de pouvoir maanaam soo nekkee ministre la preuve waaye ñu jox leen jox la suñu passeport diplomatique ñuy voyagé ànd ak seen njaboot cinq voyages donc en moyenne man depuis cinq ans je voyage une fois par année Pape Malick je vous mais mun à l'heure où je parle je ne yaa ngi dégg d'aucun visa en cours de validité actuellement bi may wax nii ci dëkk. mais ce n'est dama lay non non dama lay wax rek. man pas non dama lay ma c'est wax. vous êtes un citoyen. waaw dama lay wax non dama lay. vous avez wax après ma wax lan moo tax. yaa ngi dégg troisième élément bu gën a neex et je parle sous le contrôle de l'administration nañ dem direction passeport sama passeport man ordinaire jeex na depuis le mois de février 2024. je n'ai même pas jugé utile de renouveler ce passeport man Pape Malick. et si tu as une urgence. xaaral rek non loo xam ne amoo fa pratiquement xarit amoo fa business amoo fa affaire soo feebaree amoo loo fay fajoo sa bopp loo fay wuti a priori aw ma soxla foofu parce que depuis cinq ans aw benn soxla mu am cinq ans chaque fois yu ma dem ci extérieur yëpp c'était des missions de l'État. yëpp musuma euh, waaw waaw mais vous pouvez avoir. non mën nañ la invité ci benn forum. non pouvez avoir besoin de. circuler yooyu yëpp am naa ci ay idées yu mu ci am. après avoir fait cinq ans ci haute administration am naa idée ci ay forum yooyu yëpp am naa ci xalaat boo xam ne am naa ko ci mais li ma la bëgg expliquer mooy ku mel noonu fan lay daw ak fan la yaakaar daw. kon nii nii amuloo passeport. maa ngi nii toog aw ma passeport aw ma visa te man maa ko wutul. légitimement de manière souveraine man maa ko décidé. delloo nga sa passeport na toog. waaw fii nga xam ne sama papa fii la juddoo sama yaay fii la juddoo defuma fi ñu may xebe te tiituma fi ragaluma fi fii laa toog bu ma fii gañe bu gañee ba léegi maa ngi toog fii sama kër sama village su ma defee une semaine de semaine sama kër une semaine sama village toog jàpp sama njàmbur nekk suma njaboot nekk suma famille toog nag comme une montagne bu ñu daajoon donc ku mel noonu fooy daw looy ragal looy tiit dew ma fenn maa ngi restu de ñëpp maa ngi ni toog maintenant nag su a woo nañu woo ñu wuy ji incha allah bu neexee